président Macky Sall day wuti na xaalis ca France termine yéene kaay ne ma président Macky ak gouvernement nga mi day waaw ña nga ca Paris la France ngir na kon am ndaje xam ne day ak groupe consultatif ba waaw ci lu jëm na ci wàllum financement day deuxième phase Sénégal émergent bos populi ne réunion booba nga xam ne kon ñu koy amal nag ak groupe consultatif ba ca Paris day waaw président Macky day lu tolloog ñeenti junni kon réew mi quotidien ne gis nga groupe consultatif boobee kon ca Paris waaw président Macky Sall day la mu financé deuxième mandat bi dong lay wuti aa yéene kaay gi ne waaw boog soobli ne moo tax it Karim Wade day waaw daal dina cee xapaasib de daal di cee baa ne yorinu président Macky Sall mi ne ak gouvernement ngam bi ba nu fi daal di sàkku ne day ñu daal di audité yorinu suñu Dakar Times ne Karim Wade kay a ah, nag maanaam la kon ca cere Macky Sall ba ah, la jël audité suñu alal ji laast Karim Wade day daal dine mi la ca kanamu bailleur de fonds ya ah, waaw 24 heures yéene kaa ne Karim Wade day waaw la mu bëgg nag mooy ñu amal ab enquête ci suñu alal ji la bi Macky Sall dikkee ak léegi ni le doomu Abdoulaye Wade day yamu ca ndaxte Karim nee na président Macky Sall ah, lim fi indi ci ay bor lef fi xaalis boo xam ni kon jaarul yoon jaarul sax kon ci assemblée nationale laa la wax candidat u PDS bi day waaw daal dinay xamal bailleur de fonds yooyee ci tribune yéene kaay ne leen réew mi fi mu nii màggat mu feebar la foo laal day mi ci laa la

programme yi di énergie te bu ñu toogee day bañ ne essence wala gasoil ñàkk na ci réew mi lée bu mbetti kenn te foofee day bu ñu fa demee waaw mooy courant bi lée dana commencé waat di xuy xuy xamat xamat moom la signé woon ak jàngalekat yi waaye tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu wér garam gi lée Macky Sall tële na fay bor yi nga xam ne moom la gouvernement bi ameel kon hôpital yi lée ak poste de santé amatuñu garab amuñu jumtukaay di équipement Macky Sall tële na fay arrière bor yi nga xam ne kon toll na ci fukk juróom benn kon ci ay milliards yoo xam ne moom la gouvernement bi la yoree la école professionnelle yi la ak université privée nga xam ne ñooñee dañoo mujj dax lu tolloo ñeen fukki junni di quarante laa la wax dax nañ xale ya nguur gee fayul waaw Karim Wade ne Macky Sall mën ta wàññi kon dund gi la mën ta wàññi courant bi mën ta wàññi ndox mi njëg la waaw li tax ñu war a auditer Macky pause nee nañ seen mbir mi pause la tudd waaw nañ jël pause bu ko defee ne candidat président Macky Sall day daal di jël train bi express régional DR waaw daal di sandi karawaas daal leen daal wax amul fenn laa la wax doo fenn faal APR yemu ca ak waa Pikine waaw nee nañu opposition bi day ay bàkk di ay slogan rek waaye bi laay le 24 ñu xam ne lépp dëgg la du ñu gis suus yéene kaa ngi ne suñu banlieue day docteur Malick Sène nee na APR ak président Macky Sall Guédiawaye lay am ndam lu rëy 2019 deuxième mandat Mame Mbaye Niang ministre ci Les Échos yéene kay nee na yaakaar naa ne opposition bi tey dañuy jël pause bu ko defee daal di ñuy bàyyi nag ñu doxal ci jàmm ak salaam gañe ci jàmm ak salaam Mame Mbaye yamu ca ndaxte nee na mais ñun mënuñoo ci yow ko am leader boo xam ne ku crédible la mel ni Macky def bilan boo xam ne nii maanaam làmb daj la di concret yor programme bu baax ci juróomi at yi di ñëw Mame Mbaye ne waa ko laas ñun day dañoo soxlaatul nag guerrier yu jamonoy maam Afrique moo na fekk des fiers guerriers dans la savane ancestrale soxlaatuñ loolu Moustapha Guirassy ne te gis nga président Macky Sall mi lay waaw dëgg la du nitu guddi du lekk kuy lekk dugub waaye li mu lekkal sénégalais ci juróom-ñaari at yi ah. bi yëpp la lekk Macky defu fi dara Ousmane Sonko ci tribune yéene kaay gis nga jeunesse bi ci boppam day ñoo war a jug ngir wàllum changement la 24 heures yéene kaay ne mais Ousmane tribune yéene kaay ne Macky Sall ak livre bi day le Sénégal au cœur Boubacar Sadio waaw ne dee nañ leen wax kay le Sénégal au cœur des mensonges dëkk boo xam ni kàcce rek wax waxee sàcc alalu askan wi lay far sa mbokk rek évidence yéene kaay ne te xoolal leen ma Baye Ciss mi nga xam ne kon wàllum muus muus loog mbong mbong lu rek lay def Baye Ciss daal wàllum sabaru folklore ay projet yoo xam ne ay milliards Ibou Faye waaw ne fanweer ak ñaar ci milliards yi nga xam ne jooje tribune yéene kaay nee na waa gëm sa bopp day ñu ngi seen tournée ba léegi ni de ndax ci week bi day waaw da nga woon ca diwaanu kokki caameen kër baasi kër momar sarr gande mbake baari ngol pël njaañ waaye demoon nañ tamit day ca yéeri dakar

exclusif nee na Géejawaay day amul armeel libération yi nekkaay ne moo taxit la woon pour une alternative citoyenne day le PAC waaw daal dina ñuy wàcc ca mbedd ma day amal doxu ñaxtu loolay dëgg ndax daa tukkee gi xam ne kon ñu ngi koy jël di ko caxat-caxatee dagg filaawoya Mamadou Tee ma yoroon kàddu ga waaw nee na loolee lan dul d'accord yàqate littoral bi yow département bu toll ni bu Géejawaay ba armeel sax amu ko ay waa ji le ne dañuy caxat-caxatee wàcc ca mbedd ma danoo armeel ak taat gi ah. nga xam ne kon ñu ngi koy jaxat-jaxate vox populi ne coowal ay da Mbàkke mooy ko taaloon te kër jë maris waaw bàyyam tey Babacar Mbàkke mu ko bëroo nee na na yoon def liggéeyam xale bi nañ ko daan loolee moo mooy dindi bàkkaar ba yéene kaa gi ne ca diwaanu Tuubaa tey Moussa Konaté waaw da doon jéem a taal boppam de maar day taali la ilaha illallah ma ne la nii ñuy addoon yi lée Moussa ngi ca diggante dund ak <laughs> ñi moom léegi dañoo faaleetul dee wala axirul zaman la ñu ne doona waar boo pare ma ne la Samsung bi leen di ñaax ngeen télécharger Samsung authentique ci Play Store